arbitre sifflé na ci troisième combat bi Cheikh Omar muy samedi 14 décembre 2019 ñaari mbër yaa ngi xeex Moustique ak ak Moustique ak Africa oh là na saako yi Africa ñëwal bëre nee na jóg leen Africa Prinsipnya warna. Musik ag Afrika. Musik moo ngeen moo ngeen mu lu weex moo ñëwoon ginnaaw. Afrika ngi door ndeysaan moo jàkkaarloog ñun mo tent bop bi. Mais Afrika il faut faire doucement. combat mi jeexagul sa doole bëgga jeex. Moustique 2 bu école de Papa Kane Africa Moustique daan na waay oh, yow Moustique na la newoon naa na nga def nank Moustique daan na la jël bu rëy